Chérif yaa ngi woon démb ci ba tey ci jikko yi mhm. xam nga lislaam diine la joo xamante ni jikko moo ko tax a jóg mhm. lislaam dafa ñëw pour defar jikko mhm. suñu boroom subhaanahu wa taala lu bare bare bare bare bu ko waxee ci alquran da ngay gis ni jikko ju baax moom rek lay wax waaye jikko yooyu nag bi nga génnee ci dëggu nga génn ci maandu nga génn ci kersa nga bakr Aboubacrine Siddiq jël ko comme symbole deug nga jël Omar ibn al-Khattab def ko mu doon monument wu mandu nga jël usman ibn Affan dafa am ñaar yo xamanteni yëpp dafa marqué julli ci usman benn bi do non kersa waye bu ñaarel bi moy tabe fa tabarakallahu ba démb yaangi waxtaan ak nit ñi ci kersa ak Ousmane ñu indi lu bëree bëri ci kersa yal nañ yàlla defal kersa sherif yaangi won ci usman ibn Affan bismillah jeuf khali usman وكان أشجع أحسن الناس أحسنهم أصح الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخلقا وخير الحزب وخير الحزب والأمم نانا يوننتبي صلى الله عليه وسلم مو جنون تبع تنتني واي تبت مو جنون جمبار تنتني موتا سام بابا نانا ما مويتول توني كباخ لول ndax ku bax lool boko togné tam mune joxe ak xex ñoyam bo ci wàcc rek doko def tabarakallah nga gis ni ibn al Affan tabe bi mu tabe won Sénégal nag xamuñu luy tabe bokkul bokkul ak tabe bu ñuy wax tabe ba ñu waaji ba ñu di jokkar bi cheybat alhamdi nan ko yow yaay hatim al aqraan hatim mom ni mu melon ci tabe nga am junni may ñaar kooku du tabe de déedéet baax na nag ndax jëf moom moo gën bañ a def waaye tabe dëgg ci ñu mag ñu njëkk ña ni ñu meloon ci tabe Ousmane Ibn Affan ñu bett guerre rasulillahi jaasi fanaanul Medina mu dem daral ba jënd junni fas teg ay teg jël alal gu toll noonu teg ci jël ay jab ja ci mbaaru tëgg ba commandé ay jaasi teg yëkkati lu toll noonu ci alal jóor ko yonent bi ah yonent bi ne gaañi jiitu leen ma champ de damay fanaan Medina. fanaane naa fi la guddi lëmb. day def ñaari rakk ñaari rakk taay sëlmal yàlla yàlla na nga jéggal Ousmane yàlla lépp lu Ousmane defati bu ko xool ci safaan lu mu def ci lu baax fay ko soixante-dix millions ngi milliards tiyaaba yàlla dig naan ko amin muy julli di ñaanal Ousmane ba fajar gi xar. ma ne ku jëf-jëf ju tool noonu lan moo ko may tab moo ko may. Mhm. moo tax gis nga tafsir tabe tabe leneen la. beneen buntu la mhm. dëggu baax na mhm. bunt la pour yegg ci yàlla mhm. ndax buntu yi dafa bëri maandu buntu la kersa bunt la tab bunt la ndax nit ki amoo dara nit ki li nga amul a ëpp li nga am ndax loo bëri le bëri le romb moomul nit ki li nga mënula ëpp li nga mën ndax waa ndakaaru yëpp munoo leen jox ñuy ndékki di añ di reer durant trois mois Munoko. Mhm. kon li nga mënu la ëpp li nga mën mhm. fi nga demu la ëpp fi nga dem mhm. tey ñun ñii daanaka village yu bëri bëri bëri dem nañ fa tafsir village yu ñu tegul suñu tànk moo ëpp fi ñu teg suñu kon nit ki tuuti nga am tuuti nga xam tuuti nga dem tuuti nga mën sa tuuti tuuti yoyu. boo fi nekkee naan yaa ngi économiser boo sàgganee dem àllaaxi rek loxoy neen kon nak nit ku nekk li nga am ci ngay jaamoo yàlla ñi am xam-xam nañu mel ni tafsir abdourahman tabe ci xam-xam jël ko jàngale ndax booy jàngale da gën a xam boo jëlee alal sax maye mën na am nga maye ko mu jeex nga ñàkk waaye xam-xam moom boo koy joxe rek chaque jour nga di ko gën a bërile fa tabarakallahu bu doon joxe tamit day tax a ñàkk alaaji abdou aziz si dabaax nee na kon boo watoo dootoo amaat kawar waaye boo watoo rek nga gis mu saxaat gis nga li ci fii moo ëpp li ci fii te lii bu demul lii du ñëw fii li ne fii moo ëpp li ne fii te li ne fii bu ñëwul fii lii du ñëw fii toujours nag fa muy joge du jeex kon nag nañu jàkkaat jikko tabe moo tax ñu ne ñett yii ñett ñii waruñu koo am xam-xam ku iñaan waru koo yor alal ku nay waru koo yor وينقول تبت كس حرور كوير تفسير عبد الرحمن بارك الله حيدر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم أي دريان كتابه tabe fa tabaarakallaahu mën nañu wax rek ak taawun dimbalante moy nga am dara fexe bay dimbali ko tane Chérif yaa ngi tudd léegi wax xaatimul asam hatim momu nga xamni ni fa tabaarakallaahu nga yaa ngi wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaana ashjaa asxan naasi ahsanahum xalqan wa khuluqan wa xayra alxizbi wal umami sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon tabe ñep te kat mom dafa ñàkkoon mom ما كان ياكل خير الخلق منفردا لان ذلك خيم النكس والبرم يونت بي صلى الله عليه وسلم اغون نتي تابي فو خامني ما سولا ليك موم ريك يالا جوكو مو ام ورسك ام لو مو مانا جند ليك جند ليك تي كرم ليك كو موم ريك مسول ام سا بو تاجي ليك دينا و ño xamanteni ay neew ji doole lañ invité leen ñu ñëw bokk ak ñoom rawati nag eulu suffa nga xamni ne ñoo nekkoon ca jàkkaam ja sa suné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñu ñu toggaan da leen di woo te pourtant da daan toog du am dépense yamurru shi'run awi sha'raani min zamanin walam tara aynu fi al abyat min hadami samam maam ahmad malik radiyallahu taala nu neena yaronte bi limuy muy tabe tabe tabe tabe tabe terewul dan na tok un mois wala deux mois yo xamanteni ci ndu tak kërëm ngir ñak dépense te lu mu am da ko daan joxe lu mu am da ko daan bok sallallahu alayhi wasallam te Chérif xam nga lu fi ne li nga joxe te yàlla tax loolu rek nga am Omar ibnul Xataab yaa ngi koy waxtaane bërki démb dafa romb armeelu Baqiya ni asalaamu aleykum yaa ahlal qubuur maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ni yéen a tëdd ci armeel yi ni tekk daan ni leen axbaaruna indakum azwaajukum qad zuwijat wa duurukum qad sukinat wa maalukum qad qusimat daan ni maa ngi leen di nuyu yéen waa armeel yi ma jox leen information yi nga xam ni moo fi ne comme yéen newu leen fi yéen ci armeel yi tëdd xam nga néew du wax lépp ni tekk Omar ibnul Xataab ni seen soxna yi ngeen bàyyiwoon yeneen yeneeni góor takk nañu leen hmm. seen kër yi ngeen fi bàyyi woon am na ñeneen ñu fa dëkk seen alal yi ngeen bàyyi woon séddale nañu ko ba tasaaroo na hmm. waaye bi muy wanee gannaaw rek yàlla dogal benn xëtif daal koy wuyu haatif mhm. mooy loo xam ne da koy dégg te gisoo ko mhm. maa yusmau sawtu wala yura shaxsu mhm. looy dégg te doo gis démm ji haatif bi daal ni wa alayka salaam ya amira almuminin ñu ngi lay delloo nuyoo ñun ñu tëdd fi yow amiru almuminin axbaaruna indakum ñu ni déglu ko am nañu information bu ñu lay jox mooy maa qaddamnaahu rabaxna lépp lu ñu jiitaloon ci suñuy bàmmeel am nañ ci bénéfice bu baree bare bari bi ñu ñëwee waaye fii ñu tëdd tamit xamal ni lépp loo xamante ni maa waadnaahu faqad wajadnaahu lépp luñ ñu digoon ni bu ñu ñëwee fekk ko fi bi ñu ñëwee fekk nañ ko fi lépp dëgg la mm-hmm. bu ñetteel bi mooy wa maa xalafnaahu faqad xasarnaahu lépp loo xam ne lu ñu bàyyi woon ci suñu compte àdduna yi la mm-hmm. perte nañu ko mm-hmm. dégg nga kon bi Omar nee seen soxna yi jël nañu leen seen kër yi dëkkee nañu ko seen alal yi séddale nañ ko am na néew bu ko tontu xamal ko ni ko Omar ibnul Xattaab déglul ñu wax la ñu nit li fi xew mhm. mooy li ñu jiitaloon def ko ci lu baax lépp am na bénéfice mhm. li nga xamante ni moom lañ ñu diggoon ci àjjanaa ki safaraa ki bàmmeel mhm. lépp gis nañu ko li nga xam ni moom lañ bàyyi woon suñu gannaaw perte nañu ko kon loo ciy dégg mooy alal ji nga moom mooy alal ji nga def te yàlla tax yàlla subhaanahu wa aaya bi ma tijjee mu nga naan mbax dal nekul ci julli gu bari mbax nekul ci dem màkka gu bari melni dañ ko di suñu borom subhanahu wa taala lan moy mbax muni gannaaw gëm yàlla gannaaw taxawal julli gannaaw joxe azaka te azaka joxe la yàlla subhanahu wa taala ni mbax moy alal jo beug nga diko def te yàlla tax kon nak lolu بند لا بو خامتاني عثمان بن عفان لولو ماينكو لو بري بري بري تي لي خول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ياغي واخ خره يو خامني ديبانسي نكو موم عثمان بن عفان تي يونتبي صلى الله عليه وسلم واي لولو لوم كو ماي زبير للخلفاء سعد سعيد فك ييغا خامني افان يوي ген ادونا يونتبي كونفوكي نلين ni leen yéen yàlla nee na lu ngeen defati neex na ko mhm. dootu leen topp dara seen visa aljana ngi nii bu ngeen di dee di dem ajjana Ousmane ibnu Affan bokk na ca mhm. te Ousmane ibnu Affan lan moo ko may loolu mhm. mooy tabe moo tax fa tabarakallahu tabe daal jikko la boo xamante ni Chérif bu ñu ko defoon ci àdduna bi ñëpp hmm. ñëpp ñëpp àndandoo kenn ku ne ka nga tane di ko dimbali hmm. ku am ñetti pantalon maye benn hmm. ku am ñaari xaftaan ku am ñetti xaftaan maye benn ku togg fa tabaarakallaahu yokku am kenn koo invité kon kenn dootul sonn wallaahi kenn dootul sonn kon nag yàlla na yàlla def dëgg dëgg jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ni tab daal tabe garab la goo xam ne biir aljana la nekk baranche ya nag ñoo génn ci àdduna képp koo xam ne tabe nga xamal ni jàpp nga ci branche yi branche boobu boo ko bàyyiwul ba dee àjjana nga jëm ca taatu garab waaye nee na nay garab la goo xam ne mu nga biir safara branche ñoo génn ci àdduna képp koo xam ne nay nga xamal ni ca branche yooya nga jàpp boo ko bàyyiwul ba dee xamal ni branche yooyu ñoo lay dugal biir safara ca taatu garab ga